tey ñu am Samba dans un car rapide Samba Sène sénégalais la di def musique jóge okes ñëw ba fii seet si waa car boo leen xoolee ñu ngi ci biir car comme foofu la lépp di xewee dañuy bàyyi Samba mu wax ñu moom mooy kan ak depuis kañ la commencé ñëw leen paas ñëw leen paas ba pare <laughs> waaw salaamaaleykum Sénégal euh, man maay Samba Sène euh, comme ni ko euh, xare waxee maa ngi nekk Écosse. dama ñëwoon fii pour présenter leen sama album bi nga xamante ne moom la génnee eh, te album bi tudd Fàttali ma euh, album bi nag am na dix titres euh, depuis mille ñu ngi nekk en Écosse di liggéey foofu ak suñu orchestre bu tudd orchestre bi nga ngi tudd Diwane Diwane euh, Diwane du Sénégal. lan moo tax nga taamu musique ndax dafa am ci sa famille ñuy def musique wala. waaw musique nag dafa nekk loo xam ne c'est héréditaire en un mot. parce que euh, depuis ce moment, euh, dafa daan jouer saxophone Ce ay yeneen maam di jouer accordéon après ma juddu sama tonton de jouer clavier d'ailleurs ça, il a été professionnel avec euh, l'orchestre sénémalais joué neuf fauve pendant dix ans avant je gagne. donc man suis naa ne dama relève rek suis xamante ne ni relève. dama ko fekk ci famille bi Quel genre de musique exactement ngay bon pour le moment je suis en variété lay parce que je fais un peu un peu du tout dinaa def mbalax dinaa def euh, zouk du def euh, reggae du def afrobeat je def aussi traditionnel musique traditionnelle Sénégal. musique traditionnelle Sénégal yow ngay et Sénégalais di dund Écosse mais vous ne da ngay musique traditionnelle Sénégal ndax entre temps amul lu la de ci culture je non mënuma rëcc parce que euh, j'ai maanaam saa yu ma maanaam maa ngi branché samay raakool ci teenu Sénégal bi maanaam di root kon mënuma rëcc daal. ku la gis ak say dreadlocks dafay wax que ni Samba Baye Fall la wala réglement Samba lan la ci yooyu. waaye Samba Baye Fall la de moom euh, taalibe Serigne Touba Mbacke la rek waaw maanaam rasta yi moom saa su rek gars yi foog ne jamaïcain nga wala réglement nga waaye de lii moom ay ay njañ la rek waaw liggéey la rek sas la bis bu motee rek dañ koy wàccee. nga nekk Écosse di dëkk du sa dëkk nga bëgg fa wane sa culture ndax am nga public bi nga soxla woon foofu. waaw mun naa ne am nañ public bi nga xamante ne moom lañ soxla ndax euh, comme ni ma la ko waxee rek ñun li ñuy def euh, c'est pas pour Sénégal rek mm, li ñuy def nekkul pour Sénégal kese parce que fi ñu nekk na le euh, y a une diversité d'ethnie et de race aussi et puis comme dañu am benn message boo xam ne c'est universel on a nous ñu décidé né bon pour ñu mën gëna véhiculer message bi il faut ñu jéem fekk ci yeneen culture yi voire même jéem jang ci sen musique boole kook suñu musique pour mun exprimer wu. nga genn album dama bëgg xam ndax bi mooy sa premier album wala amna na yu ko jiit. non bi nak moy suñu premier album. waaw euh, fàttali ma ma. pourquoi fàttali. waaw parce que morceau bu ci nek rek euh, dafa marqué ben étape dans ma vie. wala mu marqué benn étape euh, euh, ci sama xarit yi wala ci maanaam yenn situation yoo xamante ne ni nettali nañ ma ko wala ay histoire yoo xamante ne ni nettali nañ ma ko ma bëgg ma tiré ci des enseignements pour mën ko jotale ba xale yi tey mën cee jëriñu. nga basé wu Écosse di sénégalais sa langue peut-être séeréer nga mais da ngay wax olof ndax fi Sénégal ñëpp ñuy way olof la way yow ban langue nga utiliser ci sa ay morceaux. bon pour le moment olof laay utiliser français ak anglais mais euh, bu ci yàlla jàppee incha allahu rabi dinaa commencé woy séeréer parce que séeréer là. séeréer nga <laughs> nga nekk séeréer dégg naa yow tamit da ngay da nga nekkoon ak euh, frère Baba Maal waggoon naa nga ñëw ci relation boobu nan la demee. bon Ahmed Maal ba sama grand la ku baax euh, bokk nañ orchestre avant may dem en Angleterre ñoo nekkoon di répéter Cité Millionnaire. Euh, bon yalla def nak ñuy dem di dem di dem ba ku ci différentes directions euh, vu par euh, dû à la conjoncture j'ai décidé madame madame Europe mais j'ai toujours gardé le contact ça manière dañuy des fois ñuy talk j'ai comme d'habitude mais amuñu dal ben problème du problème moo ñu du lén ku ci dafa la la yem bu da ngay def un bilan wala ngay poser un regard sur la musique sénégalaise lan ngay wax ci musique sénégalaise. wal euh lima ci njëkk wax moy lima constaté musique bi ça a développé bon les outils sont là les studios sont là et puis il y a des institutions yo ont ñu ngi jappalé musique bon je sais pas ndax ñu ngi leen jappalé comme à la lettre wala mais man bi may dugg ci musique affaire yi gënoon na jafé ni déjà pour nga am ku abal guitare boo joué sax problème la léegi mën nga dem sa kër copain fekk fa ñaari guitare yu tege kenn abal la wala nga dem fekk sa benn grand bu am studio wala mu xam ku am studio ñu jàppale la nga am maquette wala benn commerçant gis la bëgg la jàppale la nga am maquette kon mu ngi progressé te boo seetloo léegi ñi ngi ñiy génnee cassette bëri na ce qui ce qui prouve que ne c'est c'est plus difficile comme comme auparavant bon je sais pas ndax bon parce que comme que nekkuma fi xawma nak nan ndax euh, quel est la suivi ban suivi le seen production yi am mais je sais que ñu bari ñu ngi génnee chaque année ñu ngi gis ñu bari ñu génnee di nga gis aussi ñoo xam ne ñu ngi tourné ama bu njëkk Youssou Ndour Baba mal Ismaël Lo ñom rek ay tourné mais légui ay ñom ñeneen ak ñoom Pape Cheikh ñu ngi tourné Cheikh Lo ñu ngi tourné ñom euh, Pape Diouf ñu ngi tourné Bakane Viviane ñëpp a ngi tourné daal a ngi tourné. kon daal pour yow musique sénégalaise ça s'exporte bien à l'étranger. waaw à l'étranger léegi gën nañ xam musique sénégalaise parce que auparavant bon koo wax mu ne la Youssou Ndour rek ngay dégg parce que Seven Seconds moo tax taxoon wala ñu ne la Baaba Maal parce que Baaba Maal gars yi xam nañ ko un peu partout monde mais léegi di nga toog ñu nga teg Aline Baye der kenn ne ah kii gis naa woon clipam internet wala gis naa liwam fële donc. développement am na daal parce que am na euh, les moyens de communication sont là xam nga pour nga mën a tas wala nga wane sa sa liggéey euh, au niveau au plan mondial jafeetul même soo amul producteur soo amul management mën nga ko def à travers l'internet donc euh, man je pense que ne li ci des rek mooy gars yi gën a liggéey waaw mais waaw musique baa ngi musique baa ngi dox quoi

Samba Sen ci Samba récemment dañu am ben gouvernement avec un nouveau président ci gouvernement bi dañ ci un euh, un un artiste mu ministre de la culture mais defu fi yagul ay 6 mois ñu ko ndax wanewul en tant que artiste yeen artistes fajal lacune pour ngeen sen bop bon mais peut-être manque d'organisation ak peut-être ñàkk concert concerté wu entre ñoom mag ñi ñoom ñi nga xam ñoo jiite bon la musique la la la la la scène musicale sénégalaise bon du fait que gars yi jël euh, un artiste teg ko euh, mu bokk ci gouvernement bi mi ngi wane ne démocratie mi ngi mi ngi am mi ngi am parce que bu njëkk kenn xalaatul won jël ab musicien bolé ko ci gouvernement boo waxee dañ naan la kii amul doctorat kii amul maîtrise kii amul lii kii amul mais pour man nekk euh, un homme politique wala nga nga bokk ci gouvernement bi certes laaj na aju na yooyu yooyu diplôme aju na yooyu mais aussi def li ma gën a ñor ci ci ci ci ci un mooy euh, euh, être humain son la comme ni ko anglais waxee humanisme xamoon na ko français di wax xamatuma ko waaw <laughs> mais daal nga am maanaam nite daal nit ci biir doon nga xamante ne dara du la soppi du pouvoir du liñ la sas yow da ngay def rek pour la nation da ngay œuvrer pour la population en un mot bon liñ ko wàccee nag ñoo xam lu tax ñu wàccee ko mais man de su ma doon moom duma ci dugg du ma dugg ci politique waaw. lan moo tax du dugg ci politique. parce que je pense que ne en tant qu'artiste ñi ngi lay gën a dégloo. si tu n'es pas mêlé à la politique parce que si tu es politique bi tu es appelé à changer Quand tu es dans la politique tu es noonu loo baax baax baax baax baax moi je trouve que tu es politique parce que des fois tu es dans la politique, tu es dans la wax loolu loo xam ne politique. du mës a am kon yaa ngi changé nga yaakaar politique bi la wala la peut-être lu nekkoon la am beex na gisu ko ba benn moment ñu jox ko ndoom ba tànk mu génn parce que lu newul ci yow un génn non politique politique boo ci duggee rek changé politique moom. kon dañuy wax ci. <laughs> français nee la politique est moche. kon dinañ dugg ci politique bi nga wax ñu fii au Sénégal politique sénégalaise bi fii noo ko ah waaw man nag je me suis toujours abstenu quoi en matière de politique j'ai toujours été apolitique parce que dama ne peut-être des fois abstention dina tax gars yi dégg sa message mais à nos jours non bobu du dox nit ñi dañu wara wax.

donc ñu ngi bàyyi nit ñi ñuy expressé wu des na nag des na xam nga des na parce que ni communication mel en Angleterre defe naa ne bis bu bis bu ñu xawee jege lu mel noonu rek dinañ gis développement absolu boo xamante ne ni euh, ni Sénégal yàggee nekk euh, role modèle dans le monde loolu dina gën a fës. ndax yow ci sa ay morceau di ngay parfois sóoraale loolu di def morceau yoo xam ne day wax par rapport ak population yi li ñu par rapport à la politique. waaw parce que boo xoolee suñu CD bi lo benn morceau bu ñuy wax Africa boo ma ci incité euh, njiitu africain yi di leen wax ñu soppi seen i doxalin engagé xale yi ndax xale yi ñooy njiitu réew mi ëllëg di leen xamal ne leen maanaam nga ñuul nga weex nga nekk pël nga nekk soose loolu ça n'a pas d'importance li am solo mooy nga gouverner comme ça se doit confiance boobu la population bi bi am ci yow ba électe la nga mérité ko nga mérité ko parce que chance am na mais mérite xam nga nga am benn affaire sur mérite kooku def naa ñun ñëpp moom la ñu war a sàkku ma ñu waxtaan ak ñoom euh, montre ñu montrer euh, le vrai visage de l'Afrique parce que ñun liñ bu ñu nekkee fële li ñuy gis yëpp mooy fële am na ay tornade wala ñee duñu lekk wala ñee dañ de xam nga duñu wane li gën ci Afrique te loolu lépp li ko indi mooy njiitu africain yi waaw parce que suñu boole woon suñu boole woon tey kon li gën ci africa yi rek la tubaab bi di jël di ko wane. sa dernier mot par rapport à la culture particulièrement à la musique sénégalaise. waaw di eh, eh, ñaan gars yi ñu gën a góorgóorlu rek ndax eh, culture bi moom su amee doole rek comme ni ma koy faral di waxee l'économie va grossir boo xoolee les pays européens c'est pas comme par exemple. man les Royaumes-Unis amuñu pétrole amuñu ay or amuñu ay diamant mais avec leur euh, euh, euh, industrie dans la musique liñ ci moules li ressources yi mu ni di dugalal rek ci économie xam man kenn xamul nu mu toll parce que dañ ciy investir xam nga dañuy dem voire même ouvrir des universités yoo xam ne xale dañuy spécialiser ci benn instrument wala nga jàng ñun kenn jàngaluñu nu ñuy woyee da ngay juddu rek am chance mën woy wala mu nekk sa deret wala affaire yu demee noonu mais fële jàngal ni ngay woyee dañ jàngal ni ngay utiliser sa voix xam nga ay technique yooyu yëpp école yaa ngi foofu imagine toi tey Sénégal ak ni xale yi amee talent bu ñu amoon école yu mel noonu mais kon fuñ dem duñ taxaw Dieu merci parce que man fu ma dem ci àdduna fu ma joué depuis bi ma nekkee foofu ba tey suñ su ma leen Sénégal laa jógee di réception bi may am dama naan non kon grand yi liggéey nañ parce que grand yi bu ñu liggéeyul loolu loolu ñun bu ñu ñun duñu mën a am loolu tey da dem festival nga daje fa ak ay musiciens jamaïcains nga daje fa ay musiciens américains mais bu ñu nee sama seen la diwaan Sénégal rek nga gis bu fekkoon nit ki dañ doon ñëw nii romb ñu sax faale bu ñu tuddee Sénégal da ngay gis après da ngay ñëw nekk côtoyé ñi nekk suñu xarit commencé ñu waxtaan Baaba Maal Youssou Ndour xam nga nga xam ne nag ñii wala nga tuddal leen gore nga gis ñuy waxtaan ba ñuy jooy Sénégal balaa ngay xam ñun li ñu am nga génn waaw. mu nekkoon seen émission. l'art dans un car rapide Tay ñu invité won Samba Sen bu groupe Diwan. Nous fi invité yenen artistes di ngeen gis l'art dans un car rapide du yaatu lay doon lepp ci mbirum art mes wax merci téléspectateurs de Carapit TV et à bientôt